ki ki coow li moo xeex li waral coow li du dëgg mm-hmm. ki waral coow li moom xeexam moo doon coow loolu mm-hmm. waa léegi kooku nan la mën a indee coow loolu moom te moo te moo doon xeex coow loolu si xel quoi mm-hmm. waxuma sax ci bëgg-bëgg mais ci xalaat donc problème est-ce que du li di wax est-ce que waruñu changer système bi ndax surtout bu yàggee disque bi du reyee. non non c'est-à-dire que au-delà. c'est-à-dire 11 ans 12 ans après. waaw mais les mêmes discours. système bi système bi nan nga kaa changer sa que. Mhm. nit njort bu rafet nga mën a am si moom. est-ce que les gens qui ont concouru def de sorte que Ablaye waat jóge fii bi ñu kaa def di jubilé fii ci Liberté 6 ci deux voies est-ce que bi ñu kaa def njortoon na ni dañuy taxawaat dix ans après ne dañuy xeex troisième mandat ñu ko imaginer. parce que nit ki. dangaa wër Sénégal yëpp ñetti yoon laata ngaa falu yow nga ñëw falu ku jóg bëgg a wër Sénégal nga jàpp ka bu nu waxantee dëgg rek Khalifa Ababacar Sall Tambacounda la toll def affaire am waa Tamba génn ñu ne ah ñu lancé processus mu tukki ñu teg convocation mu ba fa tukki ba ñëw bu ñu ko tourné en arrière Karim Meïssa Wade ba ñu koy jëli dafa jóge tukki ñëw après nga teg ci beneen Ousmane Sonko boo xam ni comme la nature a horreur du vide bàyyi place mu jël ko nga dooleel ko jëlee ko mu am doole nag tey nag jommal la nga ne ba rek mais au-delà de logique ba nga nekk yépp même logique ba sax même bu dee da nga ne bu fi kenn bokk bu fi kenn kii yaa ngi jàppaateeg yépp waaye ngal la la nga doon xeex muy troisième mandat bu sa bokk yow ginnaaw xeex nga ba am sa deuxième mandat bloqué nga sa deuxième mandat waa doo doo tëj bunti. mais moom waxagul nag tamit. waaw non non non xam nga Thierno li mu la wax non xaaral xam nga ñëpp man tey. bokk naa toujours dama am yaakaar ma ne mais pourtant mën nañu dem ba war a egg fenn fi président. Mhm. daal di génn par la grande grande porte. mais sauf que lépp loo gis ci àdduna dafa am process processus dafa am fu moo fu moo tàmbalee fu moo jaar ak fu moo dem. Mhm. nan nga mën a comprendre Sori Kaba. Mhm. d'accord ci troisième mandat bu wax ka nu dàq ka. Moustapha Diakhaté keneen ak ñeneen. Mm-hmm. maître Moussa Diop toutes les personnes. Mm-hmm. mais ñooñu mooy ñi fës. Mm-hmm. mais dans l' administration sénégalaise bii tey ku ci wane ne boo nekkee poste yi wane lu ni mel ñu écarté la am na loo xam ne kenn mënu ko wax mais bari ne fa ay kilifa yoo xam ne dañ lay woo téléphone allo ah sa saa ne comme d' accord ak ñoom ñu ngi ma yóbbu ginnaaw kusaanaar wala ginnaaw guddi bi affecté nañ ma fa parce que lan yooyu nag tey. Adja mu ngi naan système bi du système bi nit yi la problème Sénégal dañuy wóolu nit am yaakaar ci moom mu tax suñu yaakaar d'accord donc aujourd'hui ce que ce qu'on doit dire au président Sall c'est quoi mm -hmm. ce qui extraordinaire ba pare man léeg-léeg damay toog mu yàgg ma ne mais est-ce que est-ce que lii mën naa ne xam nga moo la lan mm-hmm. président moo ñëw li Thierno wax ne day tëjaat bunt bi bunt bi dañ koo tëj ba pare sax mm-hmm. mu ne dama koy tëjaat mooy référendum boobu mu defoon amu fa woon place dépassé na alal jur dul jeex alors que benn projet de loi à l'Assemblée peut-être doon na doy wàññi maan wàññi parce que tey APR li ñuy wax moo extraordinaire et c'est malhonnête moo dina wéy conseil constitutionnel wax na président si faux conseil constitutionnel problème moom mandat la doon wax maanaam mandat dans le sens da ngay da ngay au lieu de sept ans durée la durée donc ci ci kàddu googu tey waa APR ñu ngi réeral sénégalais yenn yi dans le sens ou alors que bi new foofu léegi nag coow li mooy moo la aujourd'hui le président Sall par son attitude ak sa façon de manager su liggéeyoon ba Sénégal mel ni jamaa sawaay ba jeexee jeex na daa war a taxaw <laughs> mooy mooy ñaari rakk yi ñu koy yi ah. ñu koy wax